waaw ah, man sax dama ne woon dootuma ci waxati ndax boo ci dee wax day danga day dem ba dafa mel ni da ngay défendre homosexualité alors que bu amee loo xam ne moom nga gën a contre ci àddina looloo ca jiitu ndax li ci lislaam taxawee waaye wax jee bari te ñuy wax waruñoo wax ndax ba xeex jotee xeexuñu ba Macky Sall dugal nouveau droit dans la constitution ñooñu sax ndax voté wuñu constitution parce que xamuñ jéemu ñoo na xam sax lu ne ci constitution bi ñun bi ñuy constitution bi li ñoo na laaj sax ñu ngeen li ngeen di xeex lan la xam nga ustaas aussi il faut ñu wax ak ñom criminalisation bi ça ne veut rien dire vol de bataille dañ ko criminaliser lu mu jariñ vol de bétail amul Sénégal président Ousmane Sonko gis nga ñi bo leen dee déglu sa ngoo ki du yàq ñaanoon na yow ca xeex ba bu leen leen gédde kenn kenn kenn opposition tere lañ fi nekk woon a rajo tere bi kenn gisu leen lii ma lay wax da ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax ànd ak sa mag ñii Abdou juuf dafa àndoon ne magam Ousmane Tanor Dieng ànd nag Moustapha ñas ak ñeneen ak ñeneen teewul nga ànd ak ndaw ñi ndax ëllëgu senegal ndaw yi ñoo ko yor waaye mag mu wér moo gën gone gu xéwoon mag mu jàng moo gën gone gu jàngul. yii lay jaxase nañ bu leen déglu Visite Macron bi succès bu rëy bu international nga ci am Macron mom amna na problème France ndax deug yi nga ko wax africain yépp taxaw nañu fier ci discours bi nga def ñun Mélenchon daf noo gagné ndax taxawu bi mu taxawul islam cause Palestine fa baytul muqaddis nekk troisième lieu saint de l'islam oustaz yi di wax kenn jooyalu ko gis nu fi marche gisuñu fi gis nu fi leneen Macron moo ñëw fii taxaw euh, euh, Mélenchon Jean-Luc Mélenchon moo taxaw fii waxal Palestine wax joo xam ne fii mu ne àddina sëpp moom la ñuy waxtaane te Sénégal gi la ko waxe xale yëpp jóg tàkk tàccu ko ànd ak moom ca loola foofu laa doon xaar oustaz waaye débat bii liñ ci waxee waa wax nañ ko fulla ji nga ci waxee am am nga ko taxaw bi nga ci war a taxaw taxaw nga ko la ca res nag les chiens aboient la caravane passe